ba tax damay wax ne laïcité dañ ko war a jël ni ko bécc ci kaw table ji à l'Assemblée nationale woo ñi koy firee noonu ak ñi nga xam ne ñooy ñi koy firee neneen bu keroogee waay waay yal nañ synchroniser télévision yi yëpp ak rajo yi yëpp foo déglu rek déglu même débat pour ñu xam dëgg-dëgg lañ mooy laïcité kan mooy Allah subhanahu wa ki bind asamaan ak suufam si ngelaw lii nuy noyyi moo nu ko jox deret ji ni muy dawee ci suñ biir yaram wi circulation ba moo ko tëral boroom xam-xam bu rëy boobu suufam si bi mu koy bind daf ko bindoon ngir lan jaamu ko mu wàccee fii suñ baay aadama alayhi salaatu wassalaam mu nekk fii di jaamu première laïc bi njëkk a ci njabootug aadam mooy kan Kaabil mu ngo Kaabil Kaabil moom ngeen yàq i bi naan Kaabal Kaabil yi nga seytaane bu nammee mbir day day day day soppi mbir yi moo tax mu soppi Kaabil au lieu de i mu ne a Kaabal kàbbal boobu mooy première doctrine lay ñu askane ko turu kaabil Kabil mooy ci Iblis njëkk a jël ci njabootu suñu bay Adama mooy njëkk a wuy si wooteem Iblis waaw kooku njëkk a wuy si wooteem Iblis dundam naka la bindoo woon ñu ne moo njëkk a rey nit criminel la woon kum rey ñu ne ko mbokkal ndey ak baay moo njëkk def prostitution ci kaw suuf njaaloo ñu ne kum njaalool ñu ne soxnaas kum bokkal ndeeg baay moom la forcé nangu ko moo njëkk a woon gannaaw way juróom destruction de la famille bu ngeen fi jógee na ngeen dem xool laïcité objectif am ci famille détruire rek kon mooy njëkk a wan gannaaw wayjur dëngee ko weddi boromam subhanahu wa taala ah kon nag loolu mooy yoonu laïcité rey nit njaalo dëngee wayjur détruire famille bu ngeen fi jógee mën ngeen a dem ci YouTube bi ngeen bind euh, Johan Livernet yaakaar naa bind na benn wa astaghfirullah la ah, kay def na ko sax livre mais dangeen fekk benn vidéo mu tuddee ko le complot contre la famille ak le complot contre Dieu te kooku ko bind ab ab catholique la bokk du jullit waaye ñoom catholique yi ñoom la laïcité njëkk a bolde moo tax ñoom nañ xamee laïcité ñun xamee wuñ ko ni sax bu ngeen dégloo ñaari vidéo yi muy complot contre Dieu complot contre la famille ca ngeen di door a xamee lan mooy laïcité dëgg dëgg dëgg dëgg moo tax laïcité du bagaasub jullit li ñuy faral di wax nag ñun di nu nax mooy laïcité mooy bàyyi ñëpp doxal seen diine comme nañ ko dee déedéet moo tax duñ nangu mukk débat d'idées contradictoire parce que damay wax ne laïcité dañ ko war a jël ni ko bécc ci kaw table ji à l'Assemblée nationale woo ñi koy firee noonu ak ñi nga xam ne ñooy ñi koy fire neneen bu keroogee waay waay yal nañ synchroniser télévision yi yëpp ak rajo yi yëpp foo déglu rek déglu même débat pour ñu xam dëgg-dëgg lan mooy laïcité laïcité mooy kenn ku nekk lam gëm mën na koo daxal ba mu des ki gëm yàlla yow mi gëm ne yaramu neen laa gëm mu ne la demal nga def yaramu neen bu la neexee ca tefes ga gis ngeen nudisme yow mi gëm ne homosexualité laa gëm mu ne la doxal ko ba mu neex la yow mi gëm ne lesbienne laa gëm mu ne la def ko bam neex la am nga lu la aar loi dana la aar suñu force nationale dana la aar waaye yow mi gëm nag rasulullah sallallahu alayhi wa sallam nga ne charia laa bëgg a taxawal alquran laa bëgg a dekkal taxawal ko comme ni ko rasulullah yi defee woon sallallahu alayhi wa lay laïcité la déedéet arrêt yow ma mbokk terroriste nga xanaa terroriste nga ngoog loolu mooy laïcité léegi nag su boobaa lan mooy jubluwaayu alquran tey dans société lay dañ koy tënk jubluwaayu alquran ci société bu laïque mooy euh, pas-pas bi nga xam ne moom la laïcité yàqoot mu ñëw defaraat ko mu commencé ca pas-pasub tawxiid mooy wéetal yàlla subhanahu wa taala di pas-pasub laa ilaha illa allah sallallahu alayhi wa ndax laa bu leeree rek lay sita jógee fi li koy dëggal mooy njàngalem yonent bi alayhi salaatu wassalaam bi benn taalibe ñëwee tuub dugg ci lislaam ñu ko doon tuddee Adi ibnu Xaatim chrétien la woon mu ngi takk nii benn croix mu dugg tuub dugg ci lislaam tudd baati seede yi yonent bi alayhi salaatu wasalaam ne ko addi yu lii lan la mu ne ko lii day croix la croix mooy lii symboliser ne ca ñoom Isa dañu ko crucifié woon maanaam dañu ko daajoon ñu ko pendroon daaj ko mu ne ko loolu lay symbolise mu ne ko dindi ko mu daal di tekki croix mu ne ko addi yow day yaag ñi nga bokkal da ngeen di jaamu seen borom xam-xam yi ak seen sufiyanke yi addi yu da ko addi ah, de jaamu yi leen di mu ne ko mbaa duñ leen di diggal loo xam ne yàlla diglewu ko ngeen ànd ci ak ñoom mu ne ah kay mu ne mbaa duñ leen di tere loo xam ne yàlla da ko autorisé woon ñoom ñu ñëw tere leen ko ngeen ànd ca mu ne ah kay mu ne loolu mooy jàmm loolu rek kay lord ak interdiction moo tax laïcité bu njëkk ñëwee ci réew la muy njëkk yittewoo mooy l'ordre public moo koy yor mooy digal taalube naan ko defal mooy diggal imaam naan ko defal mooy digal xalif général naan ko defal mooy digal góor di digal jigéen waaye moom dépassé na nag fu ko yàllay digalee mbaa yonent bi di ko digal loolu mooy base bu laïcité waaw ñoom ëppale nañ seen bopp moom kuñ naan yàlla di leen digal ëppale nañ seen bopp kuñ naan yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di leen jox ndigal alquran nag mission jubluwaayam ci liggéeyam base boobu lay njëkk ñëw teggi ko moo tax laïcité du mos a bëgg alquran nit ku ñu laïciser itam bam laïc du mos bëgg nituk alquran mbokk yi loolu na leer ndax base bi ñu tabax laïcité moom la alquran ñëw pour dajji ko muy lan man dong ma war a joxe ordre ak interdiction alquran ak ak nitam ñëw ne déedéet yàlla képp moo am sañ-sañu joxe ndigal ak tere wute ba foofu la commencé la ilaha illallah première jubluwaay mooy loolu wéral yi moo tax bu ngeen demee ci téere bu ndaw bu ñuy tàmbaleem jàng muy al axdar yi lu ngeen fay jàng awalu maa yajibu alal mukallafi mu nga si ko koy wax a door tasihu imaan yi loolooy société bi diine li njëkk war ci mukallaf mi mooy mu wéral pas-pasam pour nga wéral sa pas-pas nag mooy nga nangu ne yàlla képpay sama borom mooy sama buur moom laay jaam ndax moo ma sàkk sàkk suuf si nga xam ne ci laa teg sama tànk di ci jëlee sama dund nooto ñaata la ñuy bay fii ci ay ton ci soble ci supame carotte nawe leneen ak leneen ñaata mango ji tabarakallah ko ndil loolu waa nooto képp allah subhanahu wa ngelaw lii nuy nooy yi te buñ ko téye woon dix ñun ñëpp ñu al ko ku nu ko andil yàlla subhanahu wa taala tey boo manqué eh, njumtukaay bay bay bay bay nooy yi ngelaw loolu ba tàbbi ci loxoy lay ji pour ñu war laa monteel ay raccord pour nga mën a amaat tuuti oxygène dañ lay dañ lay commencé chantage ah bala balañ laa andil oxygène bi nag bind nangam nangam ay junni de kon kii bu yoroon ngelaw li fuñ jëm moo tax yàlla téyel ko boppam bokk yi bu ñu kenn xëccoog yàlla subhanahu wa ma wax nag ne toujours dama koy faral di wax pour nit ki mën koo gis ci boppam man mii nii ma toogee nii tey am na ay waa kër docteur yi fi nekk ñii nag yëngatu ci wàllu santé ay docteur a ngi fi peut-être wala ay cadre yi ci wàllu googu bu ci kenn ñëwoon ne ma oustaz ma ne ko ah, mu ne ma gis nga yàlla dafa juum ci fii mu def sa bët bi soxna si nga ne ko ah, mooy la yàlla dafa juum ci fi mu placé nopp bi nga ne ko alors mu ne léegi dañ bëgg opérer bët bi teg ko feneen nopp bi itam ñu opérer la ko replacer ko feneen ku ciy gëm docteur boobu ku am xel du ko gëm ndax xam na ne bu daggee nopp bii da nga ñàkk nopp ànd ku métti feneen fu mu ko bëgg a opérer teg ko fa coono ñëwaat na ma wax nag ne gis nga yow noonu la sa borom bindee mu wér la ne juumut borom xam-xamu docteur bii bu ñëwoon ne la yàlla dafa juum doo ko gëm yàlla dafa juum ci fi teg bët bi doo ko gëm yàlla dafa juum ci fim teg nopp bi doo ko gëm waaw ah yàlla dafa juum ci yoon yu leen tëralal nag nga gëm ko li lay yàlla dafa juum ci yoon wi la tëralal yoon woowu nekk benn kot bu global kot spirituel code moral code individuel code familial wala code de la famille code social code de conduite morale code constitutionnel juridique code yi yëpp moo tolloog sunu cër yi yëpp benn waaye xëy xëy ñëw ne la yàlla dafa jum ci code bi mu tëraloon lu jëm nag ci wàllu julli moom bàyyi nañ la ak yàlla moom demal nga defee ko dem la waaye nag code mu la tëraloon yëpp sur le plan familial politique économique juridique dafa jum gis nga su naroon a dagg sa nopp bi métti moom lay indil bu teggee code yii métti bu ko raw moo lay xaar